ëppalante xaraam na boo yoree euro bëgg ko la ko wekki ci euro ñoo war a tolloo képp deux cent euro deux cent euro amul naan ah bii kat weccat bu sew la bii kayit yu mag la déedéet mislan bi misli dollar ak dollar nañu xem képp CFA ak CFA nañu xem képp soow ak soow yem képp meew ak meew yem képp dugub ak dugub yem képp gerte gerte yem képp nga lépp ci banque bi 2 millions fayal 2 millions net lu ca tegooti rek riba la loolu mooy ribal bi loo ca dooleeti riba la beneen bi nag mooy riba nasiya riba nasiya mooy bu xeet ya wuutee xëppalante dagan na waaye daganu di yéexe maa yore euro bëgg ku ma ko defal CFA taux boobu di ca tegu dagan na waaye nag jox ma ma jox la waaye jox la 10 millions yi CFA ne la utal ma ko euro waaje def juróomi fan ñeent door di la ko indil xaraam na yéen ñi tukki bàyyi leen ko ñu ci yàqule xaalis kenn xamul niñ toll bari na ku ko def nit utali ma weccat damaa bëgg a dem damaa bëgg a dem Amérique waaye wala damaa bëgg dem Europe waaye jaaree fa daw yàlla lum la tere boo ko toppee gis gànja waaye daal 10 million laa soxla CFA mi ngi nii ma takk ku ma ko defal euro laa def mu ne nangam laay jaayee 650 fi ne wala 660 yéen nag xam lu ngeen juboo boo demee Sandaga gaa yooyu nekk ca ban ba xam nañ ci lu bëri am nañu baa bu gudd la ñu toog boo ci bëggee xam lu gën a leer boo demee dañ la ko wax ndax fas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamuuna kon boo demee fu kii bi toll rek ñoom dañ la ko wax waaye nag jox ma ma jox la rek bu ëppalante bi ëppalante bi tóoba cay tegu dara néew ci waaye bu yéex amee xaraam na bu leen ko defati loolu léegi loolu léegi-léegi mu dal ka ca àll ba di ngénte soxnaam am doom mu dem ca mbokkam pël ya ne damaa bëgg ku ma sippilu man de damaa bëggoon ku ma jee ku ma wutal soow mu ne ah maa ngi jaayee nangam nag ñaari liitar yu ne daal kilo dugub wala ñaari kiloy dugub mu ne kon nag juróom fukki liitar laa soxla dem indi fan fanweeri kiloy dugub mu joxaale la ko yow ngay door a dagale soow ma xaram na mu koy damay joxe soow mi léegi nga jox ma dugub ji léegi planté gi xaraam na mais daganul yéexe jaaykatu jën ba ca àll ba yore sareet kiloob jën ñaari kilo dugub wala kiloob dugub ñaari kiloob jën planté nañ di dagan na waaye nag xaraam na jël jën ya jëli dugub ja joxe dugub joxe dugub rek jël jën peese ma peeseel la nga dem ma dem waaye joxe dem di jëli xaraam na foofa mislan bi mislin amul fi waaye yeddan bi yeddin lañ bëgg jox ma ma jox la su ko defee tamit noonu lay demee kon riba nasi'a mooy bu xeet ya wuutee hee dagan na hëppalante waaye dag waaye nag xaraam na yéexe waaye bu xeet ya nekkee benn nag dagan na da maanaam xaraam na ëppalante ga ak yéexe ga sax léegi-léeg sax yéexe gi man mee hëppalante gi moom moo ci gën a garaaw mooy gën a xaraam mooy xaraam problème am la nga dem seeti nit dañ nit ñi fu mel ni boo amee problème am na ñoo xam ne boo leen ko waxee dañ lay yokk problème dañuy wax kii kay comme dafa sonn taxal ma gën ma ma doggali ko rek benn yoon loolu lañ lay def gars yi ñoo ay ci ko sonn nga ñëw nangam wax ko wax sa problème ba pare mu ne ah d'accord mais mën naa laa lebal de loo soxla mu ne 2 million kañ ngay mën a fay mu ne feeg 2 mois mu ne nag mais da nga ci dolli 500000 nag parce que boo xasee sonn doo bañ dara bañoo dara sonn nga nga loru su boobaa yow. amoo ca bàkkaar da loru ni lekk méd di daganee ci yow ni la daganee ci yow ci yow fay ngeen fi nga toll kala lebar rek mooy gàddu bàkkaar ba mu jeex naka noonu tamit ñii def ay pere bari na léegi lool léegi-léeg sax nga sonde ko pour mën a jël lu gën a bëri yooyu yëpp boo loroo ba tax nga def ko dara nekkul ci dangaa loru loru nag dafa bari léegi-léeg nga loru ci waruwaay wala nga loru ci li ngay war a liggéeyee capital wala nga loru ci sa dëkkuwaay nga yëg ne li may dagg ci soldu su ma ko bëggee dagale danaa dem ba màgget du ma am kër kon nag naa dem def pere ci banque bi mu jëndal ma kër ni koy dagg par nànk ma am fu ma duggaale su boobaa loru googa tax dana daggan ci yow mais nag mu xaraam nga nekk ca kala lebal léeg léegi danga nga ci gis koo xam ne lim leboon lu tuuti la deux millions yi la leb wala trois millions dem na diir ba mënta fay intérêt ba di ca dolleeku ba mujj soppeeku dix millions suñu mbokk mi barki démb yéen a ngi koy dégg Baye Moussa Jaxate ci dajale gi ndonga daara yëpp dajeexoon ci nattu bi ko dal te ne ko sax bul waxati bu le dal mel mel bi ñu dal ndax ñun jàngale kat yëpp ñoo bokk écrit comme mbëri ñoo bokk écrit nag ñun tamit ñoo bokk écrit kenn ku ne bu la bu la dara dalee rek ñun ñëpp la dal moo tax ba mu ko dalee ñëpp dem keroog nee naa ko bu fi fekkoon Seydi Mouhamadul Amin moo fiy jiitu moo fiy jiitu ñëpp kon man ak Xasan Diouf ñëw fi moom lañ fi wuutu doxal ko la mu waroon a dox rek su ko defee kon nag riba ngoog nañ ko bàyyi dafa xaraam bàkkaar yi li ñuy bëri bëri riba rek mooy bàkkaar bi yàlla samp ndënd war a xare ki koy def njaalo li muy bëri bëri ak li muy bon bon yàlla sampu ndënd sàcc yàlla sampu ndënd tiriyan sampu ndënd jëw rambaaj sampu ndënd benn bàkkaar la sampu ndënd mooy lekk riba ne fa ësanoo bi xar bi a wa rasulihi ku koy def te bàyyihuloo ko boo léegi danaa ger ak yow maag sama yonantu bi nag ñooy far maa ngi la koy xamal nooy def fi may daanee laaye ji imaam Shafii eh, Abu Hanifa mu ne alquran lépp aaya ji di wax ci riba moo ci gën a raglu mu ne ndax kat li coow li bëri bëri bëri musumaa gis fu yàlla tëkkoo ab jullit ci safara waaye mu ne riba rek ci la yàlla tëkkoo jullit ci safara mooy wattaqu naara allati uidat lil kaafirina foofa lekkati riba yi ne jullit lañ la ca yàlla tëkku ci safara kon xam nga ne kon riba garaaw na abdullah ibnu salaam mu ne riba juróom ñaar fukki buntu la am ak ñaar ba ca gën a suufe rek bàkkaar baa ngi toll nit nit ku sëy waa waajuram bu jigéen kon nag garaaw na bu leen ko ñaawlu nag ne garaaw na te fekk doo ko bàyyi loolu baaxut comme déexagoo nag ñaaw na ba ko rek bàyyi ko waaye ak a ñaaw rek nga ne nangam ak naa waaye ah, lii de garaaw na waaye ah man de yàlla ku bari njëggal la loolu tamit baaxut ñaaw na nañ ko baax julli luñ la la baaxut danga koy bàyyi moom lay wax si nii ci wàllu ribaa moo tax sama borom ne yaa ayyuhal ladina ee eh, yéen gaa ya nga xam ne amanoo gëm nañ alquran laa taakuloo bu leen lekk riba riba addaafan ci ay ful mudaafatan mbir muy nekk luñ fulande wattaqu na ngeen ragal laaxa yàlla ci bahiri baa laallakum mbastale yéen tuflihu na ngeen texe ba tey wattaqu na ngeen ragal na ngeen teet naara safara allati safara sa nga xam ne uidat xadoof na ko lil kaafirin ñeeli xéeféer yi safara sañ doon xaduli xéeféer yi yàlla xadul na ko tamit jullit ñi lekk riba buñ ko bàyyiwut wa atiyoon na ngeen topp laaxa yàlla wa rasuulu ak yonantu ba laxallakum mbastale yéen turxamuuna yërëleef leen yërëmeef leen wa saari'u na ngeen njëkkalante ilaa maxfiratin jëm ci luy bijji njéggal min rabbikum gu tukkee seen borom wa jannatin ak lépp luy bijji payoor ci aljana aljana mi nga xam ne arduha yaatuwaayam ba waatu mooy juróom-ñaari asamaan wal ard ak juróom-ñaari suuf bu ñu leen jokkalantee aljana moomu uidat xadoof na ko lil muttaqina ñal way raga yàlla ñi ñoo ñaay ñan mu ne allazina mooy ña nga xam ne yunfiquna dañuy dundale seen alal fi sarraayi ci waxtu yombu yomb wa darraayi ak ci waxtu jafe-jafe wal kaazimina dana ma jagleel tagg way wan naña alxaysa tatag mer wal aafina ak way jéggala ña xani naasi walis nit ñi nañ tooñ wallaahu yàlla yuxibu dana mu yool muxsinina way rafetal ñi kon yàlla ngóog ci riba bi mu ci jeexalee nañ ko ba mu ne nañ njëkkalante li jar kursu du hëppalante halal ndax riba ku koy def ngaa njëkkalante dangay ngay njëkkalante ci kursu ci bërile rek koo gis muy muy jëfe riba rek fa bëgg a bërile yàlla nee ne bërile alal jarul kursu li jar kursu mooy mooy bërile looy jéggalu yàlla ak bërile payoor gu lay mën a yóbbu aljana alquran moo mën a toftale moo tax mu tofal ci wasaariu ila magfiratin daw leen ngeen kursu ngeen njëkkalante ngeen raj-raj loo ci lu leen ni bijjal njëggal ak lu leen ni bijjal payoor gu leen yóbbu aljana aljana mi nga xam ne buñ jokkalante woon asamaan ak suuf maanaam aljana ko gën a yaatu ci lañ déggee ne kon aljana maxluqatu la luñ bind la te génn na àdduna ndax dara mënta dugg mënta dugg ci lu mu ëpp dara mënta dugg ci lu ëpp kenn mënta jël benn benn benn benn benn bool la muy tuuti tuuti nga bëgg caa dugal paan bi te paan bee ko ëpp mënta nekk ni paan ëppee super noonu la aljana ëppee àdduna kon du ca mën a dugg te nag mooy bu ñu leen jokkalee waaye lii sax ëpp na ko yàlla dafa ko wax rek pour fi suñ xel toll waaye yonent bi nee na ki gën a suufe daraja ci yéen fa muy teg yaram ba rek ci aljana fa muy teg yaram moo ëpp moo àdduna ak li ci biiram luñ cay déggee yéen xëccookat yi suuf yi baleen ko ku bëgg suuf demal aljana da nga suuf waaye boo fi nexee di xëccoo suuf di xëccoo suuf ba duggoo aljana ñu jël suuf si doon xëccoo nag suuf sa xëccee la ñu jël suuf la ca kon ba leen xëccoo suuf ku bëgg suuf su yaatu demal jana sa yara bi rek fi nga koy teg moo ëpp àdduna ak li ci biiram ka ca gën a tuuti jongama junde dana ko am jundee jabar mooy ka ca gën a tuuti le kon yéen ñuy xëccoo doomi jàmbur yi di njaalo baleen ko soo soxlaa jigéen jaamul yàlla boo xeggee aljana da nga ci doyal mu jeex yéen ñi bëgg noflaay baleen ko àdduna amul noflaay coono fi ne xaaral ba dugg aljaana door a noppalu kon yii la yépp ñiy ut turwee ñëw waaye jëmm ji ñëwut waaye ku bëgg jëmm ja dajeeg moom yaa ngay dajeeg moom ci aljaana yal na yàlla dugal ñu ci yàlla ne njëkkalante leen ko xoolal yëpp dafa doon rafaa waaye ba ma xeggee ci wann mer wann mer dafa am doole mun mu nasab mu ne wal kaazimiina waxut wal mu kaazimuuna de man yàlla soo sama bopp maa jagleel tagg ñu may tagg maa ngi tagg ñi nga xam ne bu ñu leen tooñee ba tooñ tooññar bi leen ñi am doole ci mën a fayu am kàddu ci mun mën a fayoo ñi war na seen mar ma ne jéggale naa ndaw lu jafe lu xam doole la koo xam cër ci yàlla yaa ko man ci la daan gaa yi kursu gaa yi yàlla yi nu ne merloo nañ leen ko may taxuñ ñi mer yonentu bi la njëkk a merloo sallallahu alayhi wa sallam toog nañ nii ñu toogee ci jàkkaam ji sahaba yi war ko sol yëre yu yiw benn yéeféer bàyyeekoo ko fële summi tooyam ja di saw ci biir jàkka ji xanaa lu nit gàtt-gàtt xam-xam xam ne jàkka kenn du ci saw Seydina Omar bokki jaasi ji bëgg dagg saw ma mu ne ko boo ko daggee lor ko saw bu bu koy borom di génnee jeexagut boo ko daggee rek mën naa jël am feebar bàyyi ko mu mottali waaje sawa saw ba pare yonent bi xoo ko ne ko kaa ñi waxtaan nag fii ci jàkka ji palaasu jullee kaay la waaye duut palaasu saw kaay kaay ma wan fu ñuy saw boo bëggee sawati waa ji ne ko ashadu an laa ilaha illa wa annaka rasulullah loolu mooy baax noonu la ko kii donnoo sayduna xasan kenn du xasan sëtëb yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam dafa toog benn bis rek wax benn surugaam jaamam la sax ne ko demal nga sangal ma fas wi joxal ma ko dugub gaaw ñëw indil ma ko léegi damay génn damay tukki kooka dem yàgg fa lool ba jéggi dayo mu sol di ko xaar rek kilifa gu taxaw di la xaar mu ne naa dem seeti waay kii lu ko téye mu dem fekk waa ji daal jël jaasi càtt fas wi dóor tànk ya ba fas wa tëdd mënta mënta jugati mu jël deret jër yëpp rat euh, euh, euh, diw ko diw ko ko Sayyidina Hasan ne ko lu la xiir ci lii mu ne ko bëgg nga mer rek dara damaa bëgg nga mer mu ne ko ah yow seytaane moo la xirtal ci man jég wan naa sama mer mu ne ko mais yàlla bi mu waxee ak sa maam xemutoon ci ko wan mer rek dafa caa toogoon wala aafina ani naas mu ne ko afawtu an ka jéggal ko xemut ci de dafa ne wallaahu yuhibbul muhsinina mu ne ko bis ni ki rek goreel naa xam nga kii mooy sang kilifa gu ne génneel ma sama oto bi damaa bëgg a génn nit ñaa ngi lay xaar chauffeur ba dem bënn ñeenti pneu ya toj pare-brise ba nga wax ko mu ne ah damaa bëgg nga mer keroog nga koy dàq boole ko def constat gaa yi ñëw nga génnee ko ci lépp mu ne ko jéggal naa la gaa yi yàlla yi dañoo yëg ne mer dafa métti te mer tamit dafa dafa xeebu moo tax kenn mënu leen koo defloo ci yàlla rek nga leen ko mën defloo parce que mer du dara bu ñu laajoon mer mooy lan nga ne ah mer de mooy lex yu gondale ak tuñ yu funki ak bët yu xonq ak si diiti baat yu taxaw waaye lii ku mu gane si bu la fekkoon nga ñaaw gën ngaa ñaaw bu la fekkoon ñaawoo woon tamit bu la fekkoon nga rafetoon tamit ñaaw nga ñu ne ah ñu ne nag lii waral ñaaw wala mu yokk ñaawaay ñun yàlla rek ci lañ koy def imaam Saafi yu def nañ ko ko yóbbu yéreem yi ca tailleur ba demal nga ñawal ma benn noonam dem ci tailleur bi ne ko waa ji nee nga sensé mesure bi mu ne léegi daal loxob nday joram bi da ko xatal loxob càmmooy bi nga yaatal ko mu indi yére bi lii moom mu ne ko modd bu xew la dañ ma ko wax ku la ko wax mu woo waa ji mu ne ko dama sam noon laa rek maa tax ma wax ko lii mu ne ko maa lay sant di la gërëm da xam ne jàngkat laa damay bind ci sama loxob ndeyjoor laay bindee comme nag loxob ndeyjoor bi kat na dootuma wag a sotti loxob càmmooñ laay xenoo téere yi wàcc na boppam dootuma ko wàccee te koy yéegal jërëjëf ku ko mën a merlo Abu Hanifa di julli jumaa romb benn këru noonam koo ko jël ndox ma rek sotti ko ko ba yére ya tooy xet mu gestu ko loo ki jublu nga mer mu ne ko maa ngi lay sant ku ngi daw safara boo ko sottee ndox da lay gërëm man daw safara rek moo tax may dem juma kon nag gars yi noonu lañ daan gisee mbir ya ku gisee mbir yi noonu dootoo sonnati waaye suñu àdduna bi ko fi topp ku la ku la xuy nga mer da nga yàgg danga ñaaw ba tàyyi dañuy ñaaw dañoo bëri bët yu xonq yi nañ bëree ci ji jamono boo ko gënee xonqal foo jëm aaya ji ci tegu walladina ida faalu faaxishatan mu ngi wàcc ci jaaykatab tàndarma bu ñuy tuddee tayhaan nit matut ku mat yàlla la dimbale da doon jaay tàndarma tàndarma benn jigéen solu xeeñ loo xam ne lu doy waar la ñoo ne ko ah damaa bëgg tàndarma de seytaane man ko ci bakkanam mu bëgg a ndaw ca ne ko nag yow tàndarma ji nga bëgg ma ngi ca deppo ba fii daanaka tàndarma ji fi nekk daal du dara de tàndarma ju baax ja ma ngi ca deppo ba moo tax deppo yi lu ne xew ah mu dem ca deppo ba yóbbu ko fa moom daal lu dul sëy rek def na ko ndaw si sëy rek la defut ak moom bam mu ca bàyyeekoo nag xelam mi dellu si mu bëgg yedd boppam jooy ñëw ci yonent bi ne ko torox naa alku naa lan la mu ne ko damaa séq ak benn jigéen lu ne def naa ko moom sëy rek laa defut ak moom tey nag lu dul mbaax mbaaxama ko gënal damaa bëgg yàlla jéggal ma mu ngay jooy ak jooy lu ne aaya ja wàcc ne ko yàlla jéggal na la moom lay wax si nii yàlla ne na gaaya nga xam ne ida faxaloo bu ñu defee faaxisatan bàkkaar aw xalamoo wala ñu tooñ anfusahum seen bopp zakaroo ñu fàttaliku laax yàlla fastaafaroo ñu sàkkoo jéggalu li zunubihim ñeel seen bàkkaar ñu yëg ne wa man yaxfir amul aman yaxfiru du jéggale sunu ba bàkkaar ilallaahu la dul yàlla fekk walam yu siroo nuuruñu ala ma faaloo ca lañ def waxum fekk mbir moomu ñoom yaxlamuuna xam nañ lañu def defe wudde ulaayaka yooya gaay jasaawum seen payoor maxfiratun mooy njëggal min rabbihim gu bàyyi ko seen borom wa janaatun ak ay tool te jiri yooyu dana daw min taxtihaa ca tool ya al anhaaru sew nda yay ñeent waaye ma koy firee ca xaaj suuf ba xaal dina matale seen ak béel fiha ci aljana wan maanaam wa neex ma baax na ajurul amilina payoor ak way jëf ña lii leen yàlla fayee xoolal kii lam def ak fi yàlla mujj moom kon nag jël nit ñi dugal safara hóorut ba safara sii génnee ci millions yi nit ya waroon dugg moo gën dugal ci kenn ku ci war a dugg boo gisee Seexu Tijaan bari client dafa yéene nit ñi xal rek moo tax mu bari ku def nangam yàlla jéggal say bàkkaar ku def nangam dem aljaana ku def nangam am ngërëmande aljaana nit ñi ku leen di xemam loo aljaana ba xam leen waaye nit ñi ku leen di sori aljaana mel ni yaa ko moom rek ñàkk leen kon nañuy xam ne aljaana ji kër ak yàlla la ku fa dugg sa jëf mënu faa dugal yonent bi sax wax na ko dafa ne aljaana jëf mënu faa dugal kenn saxaba yi ne ko ba ci yow mu ne xanaa ba ci man xanaa yàlla njoof ma ci mbatam yërmandeem rek kon nag di dugal di di génne nit ñi xal jaana hóoru na ñëpp nañ dañ jàpp nañ na ñëppuy dem rek feeg ba ñu ñàkk gisee loola kon nag tabaarakallaahu mën nañoo teg foofu seen baaraam lii sax dal na asif ibnu barxiya doomu tàntaay yonentu yàlla suleymaan la moo ko yar xamoon na ismullaahil ansam jàngoon ngeen ko ana bi bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka dafa jëfandikoon ismullaahil ansam moom dafa tooñ yàlla tooñ gu métti dem ci Souleymane ne ko jéggalul ma Souleymane jéggalul ko yàlla jéggal ko mu tooñaat mu demaat ci Souleymane ne ko jéggalul ma mu jéggalul ko yàlla jéggalul ko mu ne ko nag Souleymane yàlla ne ko waxal sa waa ji bu tooñaatee nag du ma ko jéggal mu dem mu tooñaat ca même tooñ gi dem ci Souleymane wax ko ko mu ne ko sa borom nee na du la jéggal mu ne ko bu ma jéggalul nag fekk yaa ma jéggalul waaye tey bàyyi ma dem man jéggalul sama bopp dem rek jàpp njàpp lu sell toroxlu waaye bàkk yam bàkkee yàlla ci arab rek bu ñu la ko waxee nga daanu bokk na ngi defe ne yow yàlla lii lépp dara yóbbuwut ma ko damaa defe ni ma manee damaa bëgg nga def ni nga manee rek man ni ma manee mooy tooñ kon yow tamit jéggal nga manee te ñoo dajee <laughs> moom daal ba mu paree yàlla dafa ne ko waxuma la bii jéggal naa la ko ba nga defagul jéggal naa la ko ba ca tegoo ba ca tegoo yëpp jéggal naa la ko kon nag yàlla ñu yàlla jéggalal boppam def ñu dëgg dëgg jullit may ñu mujj rafet xiir ci boppam tabaarakallaahu tey nag suñ plateau bi dafa riis nga xam ne waajuram moo daan def jotaay bu mel nii ci tafsirul quran ci ndakaaru yi fi gën a riis moo ko daan def baay baay Ibrahima Sakho kanaa as Xasan Diouf imaam Xasan yàgg nañoo waxtaan mu ne ma dafa daan teg ay coupe sax ay neexal ku trouvé nangam gañe ko ku trouvé nangam imaam Xasan mi moo ko daan gañe gañe na ko at yu bari ba mujj sax dañoo mujj boole booleetuñ ko ci ndax saa yu ci bokkee rek gañe ko kon nag doomam Pape Pape Ilimane Sakho moo ñëw tey di invité d'honneur tafsir bi di borom xam-xam tabaarakallaahu di nit ku baax ñu ngi koy siyaara tamit di ko jéggalu ci yàq yi mu ànd ak suñu waajur bu baax wii ba laa ji Daawuda Camara bàyyi ba Sanjara mu cofeel dafa metti mag mu woor as bi mu toll bàyyi ko ba Sanjara ñëw fii loolu duut lu mën a dollee ko ci ñun moom ma ñu mën a dolli mais ñun mënuñ ko dolli dara waaye cofeel ak mbaax rek tamit yàlla na yàlla guddal fanam yokk ak wéram ñu ànd ak Cheikh Amadou njaay imam la ca Tëngéej di boroom xam-xam ànd ak délégué quartier Mor saajo ànd ak Cheikh tijaan ñas mu bàyyi Ibrahima Sakho ku ko xam-xam kook moom ñu ànd ak koo xam ne nag mu nekk ci plateau bi al oustaz Hassan juuf moo ma koy présenté ancien footballeur la waaye léegi nag moom jàngkatab alquran la mooy alaaji mamar mii xam ngeen ne football kat la ah alaaji maar yaakaar naa ñi seen xam-xam màcc ci football xam nañ ko France la nekkoon di football waaye léegi nag nañ ci tereewu alquran ndax gis nga kaamilu alquran bi moo ko bind bii ku doon moo bind kaamil bi léegi la ma ko Assane jur présenté moo ko bind kon nag nga xam ne ku góorlu yàlla dimbale la te ba ñuy bañ a àtti nit ñi ci seen métier bu ñu jël nit ki mu nekk ci métier am rek nga atte ko ca am na ku nekk ci métier bi nga jàkkar ne yaa ko gën métier fekk moom moo la gën bañ a atte nit ñi métier lu jara lu jara bàyyi xel la kon nag moom tamit ñu ngi koy siyaara di ko dalal tamit ci plateau am bi euh, di sant di di di sant nag gaa yëpp toppandoor la ñoom Sadio Mané te du Sadio Mané ñoom ñëpp nañ la nañ la toppandoor rek <laughs> ci jiyam bind kaamil bi yàlla defal nga tawfiq ak taysir mi ngi mel ni dab ñu ngi débordé yàlla na yàlla dimbali ñu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu thumma idha adaqahum minhu rahmatan idha fariqun jotaayu tafsir ak oustaz Hadi Niass bés bu jot ci waxtu wi inna hadha al-qur'ana